أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد بن وعلى آله وصحبه وعبده أمته وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi kon ñoo ngi leen di nuyu te leen baal àq te ñaan suñu borom boo ñu jéggal ñu fas yéene ñëwaat tey ngir fàttaliwaat mbirum jaamu yàlla gi nga xam ne noonu ngi tax di ko def suba ak ngoon guddi ak bëccëg te mooy julli juróom ndax mooy jaamu yàlla gi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu taxawee dina taxaw bu daanoo dina màbb ngir wàccuwaay bi nga xam ne julli am na ko ci lislaam ni muy màndargale diine am ni muy feeñal ak taaram ba tax suñu boroom jël baaxu jëf yi aj ko ci baaxu julli comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxe awalu maa yuxaasabu alayhi al-abdu yawma al-qiyaamati as-salaat fa in saluhat saluha saa'iru amal saa'iru amalihi wa in fatudat fatuda saa'iru amalihi mu ne bu jaam bi teewee ëllëg yawmal qiyaam ba suñu borom di seet ay jëfam ay julleem lay njëkk a seet su baaxee yeneen jëf yi ci def yëpp daal di baax su baaxul nag benn jëf du baax gannaaw kon baaxu jëf yi mi ngi aju ci baaxu julli day war kon ci jaam bi mu jéem a yittewoo jéem a xam àtte yi nga xam ne moom la julli làmboo muy ay farataam ak ay sunnaam ak ay ngëneelam ngir lum ci bàyyi mu mën a xam ni mu koy defare ba julli ko du yàqu bu ñu waxee farata julli nag mooy ponk yi nga xam ne ñoo tee julli nga xam ne bépp farata boo xam ne bàyyi nga ci ab ponk lu mel ni rukon baa ko jóot te dabaatal ba faat booba raakaa kon day daal di yàqu dootul bokkat ci julli gi te dabaatal bi nag ni muy fàtte mooy ba nga laata fàttaliku ne raaka bi nga weesu kat am na ponk boo ca bàyyi fekk na raaka bi ëpp mu fasu na te fasu fasu raaka mooy siggi ci rukkoo su fekkee nag rakka ba nga sës rakka ba sës ci moom fasuugul kon dabaatal ga dabaatal rakka ba nga bàyyi woon ab ponk kon faatagu la fa nga ko fàttali ko fa ngay bàyyi koo dem defi ko bu dee sujjóot la woon nga sujjóot bu dee ab rukkoo woon nga rukkoo bu dee kàbbaru armal la woon mun nga bàyyi woon kon mel na ni tàmbalee ko julli ndax kàbbaru armal moo lay dugal ci julli gi boo ko bàyyee rek loo weesu kenn du ko limaale ci julli kon nag xamal ne li ñuy wax farata ci julli mooy loo xam ne boo ko bàyyee ci sa julli ak ci jóot mënu koo defar xaw rek nga indi ci julli ko doo ko baax farata yooyu nag li nga xamee ne ulama yi ñu borom xam-xam seet nañ ko gis nañ ne mat na fukk ak juróom te bi ci njëkk mooy li ñuy wax am ni yëg mooy yéene julli waxtu la nga bëgg a julli yéene nag waxoon nañ ne ci xol bi lay nekk waaye làmmiñ suñu ci aw yoon bu jar kon ngay wax naan fas na maa yéene julli sàngam yooyu gannaaw boo laabee laaj bu war ci yow nga taxaw julli seen bi yëkkati say loxo ba nga laata wax allahu akbar nga dawal ci seen xel ànd ak yow di ci sa xol ne fas na maa yéene jox waxtu sàngam wi balde kàbbar sa saaga loolu rek boo ko defee mu doy bu jar kon nga di ko wax ci sa làmmiñ lu may nag nga doon koo xam ne rek sam xel daa baaxul nga xam ne loo def boo demee ba ca biir di ci am xel yaar ci def naa ko wala defuma ko su boobaa kon yoon may ma la nga wax ci kaw làmmiñ boo yéene ni fas naa yéene joxe rate yi tisbaar bi wala tàkkusaan bi wala julli bu maa doon ngir nga mën a tàggu ak ci kasaat boobu nga xam ne moo lay faral baax moo tax sëriñ bi di wax ci tasawul subaan ni wa yukrahu nutqu biha illa ida kaana illa ida xat kaana daa wasosin fa yustada mu ne sib nañ ngay julli di wax naan fas naa yéene julli sàngam yooyu kaw laa nit ki ñu ko maykee mooy borom xel moo xam ne am xelam daa jaxasoo lay dem ba yàgg gaaw a fàtte kooku lañ may mu di ko wax ci làmmiñam bokk na ci farate julli yi kon kaabar bu jëkk bi ñu di ko wax kaabaru armal te mooy kaabar bi lay dugal ci julli gi ca boo ko xasee def la muy wane mooy ni day wane ni kon siñe nga ci sa kanamu borom ni lépp lu bokkul ci julli gi araamal nga ko ci sa bopp ba keroog ngay sëlmal kàbbar boobu nag tëggin wi ñu ko miine muy allahu akbar moom nga koy waxee mu wér waaye boo waxoon beneen baat bu dul allahu akbar mel ni nga ne allahu ajallu wala nga wax allahu a'zam su boobaa kon bu baax lu baax mooy du wér bu dee ñu ngir mi ñu nekk ñu ngir al imam malik kon képp kuy julli faaw nga wax baat bi muy ilimaan muy maamum wala ko beru di julli moom dong kon ñëpp la wax bu ko sa ilimaan waxoon te waxoo ko bu tax mu mën la koo yóbbaale ci julli gi maanaam du la ko mën a gàddu kon li fay waxoo ko rek jàppal ni bokku boo ci julli gi moo tax boo demee ci téere bi ñuy wax misbaaxu saalik ba muy lim faratay julli ya ba ak ci kàbbaru armal dafa wax ni saaniha takbiratul ihraami lil fadli wal maamumi wal imaami mu ne bokk na ci faratay julli yi kàbbar bi nga njëkk a kàbbar muy kàbbaru armal war na kenn ku def julli moom dong war na maamum war na imaam kon ñëpp ko war a wax moo tax kon soo nekkee ci gannaaw ilimaan di julli fàtte wax allahu akbaru kaal allahu akbar bu jëkk bi dem ba ca rakka ñaare ba nga door koo fàttaliku xamal ni kon rakka bu jëkk moom raw na la donte sax ànd nga ko ilimaan ca taxawaay ya ak ca rak taxawaay ba ak rukon ba ak sujjóot ba yëpp te yooyu jamono yaa ci door ak ci fekk ilimaan ci rakkaam ñaare bi yéen a bokk aparté maanaam da ngay fay rakkaa ni moom ngir li nga ko waxul ci tàmbali ba yëkkati fay loo xam nag waxtu bi ngay kaafar lañ wax ne boo ko bàyyi woon du wàññi dara ci julli gi ndax luñ sopp rek la waaye wax gi allah akbar moom mënta ñàkk saa su dee képp koo xam ne mën nga koo wax bu dee koo xam ne nag dafa lu wala aw laamiñam bindoon woo xam ne mënta wax allah akbar kon wax nga da koy wàcc du doon ci pratique moom ba tey bokk na ci farata yi alxiyaamu laha te mooy jamono yi ngay kàbbar kàbbar armal fekkal nga taxaw jonn fekkoon ne dangaa toog kàbbar doo ko jóg wala nga jóg te taxawoo jonn saa te wax su boobaa tey julli bi du baax lu mel na nga doon ko am dañ laa raw laa raw ci ak julli nga ñëw fekk imam ku koo su boobaa kon nga daal tàmbali sa kàbbar almal ci bi nga taxawee daal koy motli ca rukon ba maanaam daal bi nga naan allahu fekk ne yaa ngi taxaw waaye bi nga naan akbar fekk nga tëdd rukon maanaam da nga koo tàmbalee ci taxawaay ba àggale ko ci rukon bi su boobaa kon yooyu jamono la ñu du wàññi dara ba tey bokk na ci farata yi jàng faatiha moom ci farata yi la bokk muy jàngu làmmi nag lañ wax ndax soo ko jàngoon ci sa xol te sa làmmi yëngatugul su boobaa du baax waaw kon nga yëngal sa làmmi tudd arab yi mu door a baax donte sax sa kàddu dafa suufi ba li ngay wax seen déggoon waaye yi nga gis sa làmmi moom mun cee ñàkk soo ko mokkul na moom faatee xam ne day doon lu war ci yow tax boo demee kon ci téere bi ñu wax misbaaxu saali ba tey da nga seet ñu wax naan saalisuwa qiraatun bil hamdi alal imaam yi wax doro wal farde mu ni jàng faatiha farata la ci imaam ak yi nga xam ne dafa beru di julli moom dong ñoom farata la ci ñoom wante bu dee maamum bu dee ci ngir mi ñu nekk muy ngir al imam malik du farata ci maamum ndax borom xam ne dañoo wax ne la xadis waxoon ni ku julli te jàngoo faatiha amu ab julli bu dee ci maskat malik dañoo jàpp ne kii jiite ak ci berdu julli moom dong maanaam ñoo tax aj bu dee wax waaye maamum bokk ca lay sunna ci moom moom maamum yooyu jamono bu dee julli gërël la mooy mu ne ceel déglu déglu njàngu ilimaanam moom la sëriñ bi ci def sixaar sixaar di wax ne in faatu maamumun la daa ijhaari imaamihi mu wax ne sunna la ci maamum bu ilimaan bi jàng ca kaw mu ne ceel déglu ko te bañ a jàng ànd ak moom ñu gis kon ne farata julli yëpp nag faatiha dong la ci imaam gàddul maamum li ci def yëpp maamum moo ko gàddul boppam lépp farata boo xam ne bàyyi na ci farata bu dul faatiha ci jamono yi mu ànd ak ilimaan di julli booba raaka bu ilimaan sëlmalee dana indi raaka bu ko wecc kon faatiha rek moom la ñu gàddul ma moom ci farata yi julli yi te loolu buñ ko seetee am na lu tax ndax su fekkoon ne jàng faatiha war gi mu war ilimaan noonu la waree ay maamumam kon bu dee julli biral su ilimaan di biral ci di biral am njàngam ma amuñu kon dañoo war a biral ni moom ndax moom la ñu roy lu mu def dañ koo war a def léegi nag su idamaan day jàng ci kaw maamu yi di jàng ci kaw loolu kon xam nga dana indal jaxasoo te su boobaa ak dégluwante du am te kon ak dégluwante bu amul kon daanaka kenn du xam lool looy waxat moo tax kon misinaal bi mu amul jamono yi idamaan di biral mu déglu ko kon ñi faral def na bu idamaan jàngee faatiha ba tàmbalee jàng saar wa ñu gaawtu di jàng faatiha ci suuf nañ xam ne bu dee ci masabu imaam Maalik la ñu àttewu la gën a wér te gën a siiw moo di ne sunna la ci ñoom ñu déglu ilimaan seenu ñàkk jàng faatiha kon yàqu seenu julli ndax waxoon nañu xadis bu wax ne ku julli te jàngoo faatiha amoo ak julli bu dee ci masabu imaam Maalik ilimaan ak ci biir di julli moom doomu moo tax ñu wax waaye moom moom bokk dafay bokk na ci farata yi jamono yi ngay jàng faatiha fekk la nga taxaw joon ndax jëf ju ne ci jëfi julli gi ab jamonoom da koy toog ci atteem maanaam bu nga jàng faatiha farata la te faatiha jamono yi nga taxawee nga koy jàng kon taxaw jàng bi day doon farata bu ne taaye sunna la te taaye jamono yi nga toogee nga koy def kon toog taay day doon sunna lépp lu wax rek ni nangu mooy ab atteem julli jamono bi da ngay def loolee jamono bu da koy toog ci atteem bu dee farata muy farat ni moom bu dee sunna muy sunna ni moom bu dee luñ sopp muy luñ sopp ni moom ba tey bokk na ci ponk yi nga xam ne ñoo tey julli muy arukon moom it rakka la ko moom it bépp rakka boo xam ne defoo ko jëm te dabaatal ko faat boobu rakka xam ne kon yàqu na faaw nga indi nga indi rakka bu ko wécc ba tey bokk na ci yi nga xam ne boo leen bàyyee ci braka mu yàqu mooy sigi ci rukon boo rukonee te siggiwoo nga xam ne danga rukon rek jaar fa dem sujjóot te jotoo siggi soo ko fàttalikoo njëkk raka ba ci topp di fatu kon da ngay dem rukon jàpp sa bëtiwoom doo rësi ndax mënoo amal ab rukon te fekk te mënoo amal ab siggi te defoo rukon ba noppi fekkee fàttalikoo ko nag baraka ba ci topp fatu ba noppi nga door koo fàttaliku bu fekkee loolu rakka bu jëkk la woon kon bay boo nga def saraka ñaareel bi mu nekk saraka bu jëkk ndax waxtu woo siggee ci ab rukon dootoo mën a dabaatal loo xam ne daf laa faatoon ci rakka yi jiitu woon ba tey bokk na ci ponk yi nga xam ne ci la julli taxaw mooy ak sujjóot moom it ànd ak melokaan ni ñi nga xam ne lañ ko xamee te mooy sëg jë dëkk ci suuf te yaari tenk te yaari loxo tege ci suuf ak say bëti woom sa cati baaraam yi sa yaari tànk samp ci suuf loolu mooy melokaan sujjóot bi xadis bi wax ni umirtu an asjuda ala sab'ati afrar dañu maa digal waxtu woo xamee ne maa ngi sujjóot ma sujjóot ci sama juróom-ñaari set te mooy sama jëf muy benn ak sama yaari tànk muy ñett ak sama yaari bëti woom muy juróom ak cati baaraam yi sama yaari tànk muy juróom-ñaar kon sujjóot bokk na ci ponk yi nga xam ne ñoo tey julli gi bépp raaka buy julli gi te ak sujjóot nangi rek te dabaatal ko faat booba raaka waaw nga indi dina raaka bu ko wér ba tey bokk na ci farata yi siggi ci sujjóot ndax sujjóot ñaar lay doon te balaa ñaar yee mën a am faaw ak siggi dox seen diggante ba tey bokk na ci ponk yi nga xam ne ñoo tey julli gi li ñuy wax al i'tidal ñu gën koo xamee ci waxtu bi nga siggee ci rukon ak waxtu bi nga siggee ci sujjóot te mooy boo siggee ci rukon nga taxaw bu jub xoj door a dem sujjóot boo siggee tamit ci sujjóot nga digg sa bu jub xoj door a sujjóot sa jóot sa sujjóotu ñaareel kon siggi bi day farata siggi bu jub xoj di farata moo xam nag siggi ci ab rukon la wala siggi ci ab sujjóot lu mu ci mën doon rek war ngaa dem bu jub xoj ba sa cër yëpp dal nga door a sujjóot sujjóot bu jëkk baa sa sa bu ñaareel mu mel ne nag loolu ñu bari dañ koy faral di doyee dara jàpp na du yàq dara te fekk xamuñu ne sijji ba jub xoj boobu ñu wax bépp raaka boo xam ne defoo ko rek boobu raaka xamal ne moom yàq na moo xam da ngay jël yow dong wala dañ laa jiite ndax ci li jiite waxoon nañ ni benn farata rek moom la la mën a gàddu képp farate julli yi muy fatiha kon farate ji def yëpp nag loo ca bàyyi yaa koy gàddu sa bopp waaye moom du ko gàddu bokk na ci farate yi ba tey li ñuy wax ak suma am ñu na te mooy jamono bu ne tey ciir na set ci boo taxawee ak boo rukkoo ak boo sujjóotee rawat na sax ci booy sujjóot wala ngay rukkoo moom it bokk na ci ponk yi nga xam ne boo ko bàyyee sa julli day yàqu ndax ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàgg gën a dégg sàmm arab boobu doon julli te julli ga gaaw lool nga xam ne diggante ab rukkoo ak ab sujjóot amul ab diir bu mu fay sax day sëgg rek daal di siggi bu sujjóotee ba day def noonu julli gi gaaw la ba mu sëlmal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko jullil julli woo mu jóg defaat nam defoon mu ne waat ko julli julli woo ba tey nag ba yàgg nag mu ne ko giñ naa ci ki la yónni kat lii dong laa ko mën te lànk lam door koo xamal ne melokaan bi nga xam noonu la war noonu la jaan bi war a jullee xamal ko ni ko julli du lu ñuy farax faraxee ak teelu la ak teewlu gannaaw dangaa taxaw ci kanamu buur bu màgg fasante ak moom kóllëre fas yéene lépp lu bëgg ci julli gi sa xel bu ca dem te doo ko xalaat kon boo julli war ngaa mën a teelu ànd ak teewlu ni ko boo rukkooxee bala ngaa sigg na nga fa sax ab diir boo siggee bala ngaa sujjóot na nga fa ne tekk ab diir door a sujjóot boo sujjóotee bala ngaa siggi na nga fa sax ab diir door a siggi boo siggee bala ngaa sujjóotaat na nga fa ne tekk ab diir door a sujjóot sujjóot ñaareel boo sujjóotee sa sujjóot ñaareel na nga fa sax ab diir door a siggi ni ko raaka yëpp na nga leen defe noonu noonu la ñu jullee bokk na ba tey ci ponk yi nga xam ne ñoo tey julli te mooy softale farate julli gi maanaam lu war a jiitu lu ne nga jiital ko lu war a mujj nga mujj ko te kon dangaa juum jiital loo xam ne lu war a mujj mujj lu war a jiitu farate yi kon daaka ba loolee xew day yàqu su fekkee dabaakal bi faat na kon ñu taxal ko benn asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala